Euh, nekkoon avocat boo xam ne kat euh, ràññeewoon nañu ab euh, taxawaayam ci secteur bi nga xam ne ci la nekkoon niki tey jii nag mu daal di wuy ji boromam jamono ji ñuy wax ak yéen nag kër gi nga xam ne moo nekk ci këram nga xam moo ci Touba ci diwaan bu HLM foofee kat wax dëgg yàlla nemmeeku nañ fa lenn ci teewaayu ñi nga xam ne ñooy njaboot gi ak dëkkandoo yi ñu am li nga xam ne mooy naqaat ak tiis muy wàccug liggéey ki nga xam ne moom mooy euh, maître Khassimou Touré euh, fii ñuy waxee ak euh, yéen nag maître El Hadj Diouf di avocat boo xam ne moom it ñëpp ràññee nañ taxawaayam te diggam ak maître mu Touré nekk lu lu lu nekk lu yàgg lool. Euh, daal di nañu koy ànd ak moom jël ko ci téléphone bi euh, mu indi ay kàddu yu ci ki nga xam ne moom mooy euh, maître Khassimou su ko defee kon dañuy daal di ànd ak ki xam ne mooy maître El Hadj ci kàddu yu yoo xam ne daal dina koy yëkkati jëmale ko ci ki nga xam ne moom moo di maître Khassimou Touré mi nga xam ne moom moo fi bàyyi ko. kon voilà mbokk yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di jaajëfal bu baax kon jamono ji ñu waxee ak yéen. Euh, maître Khassimou Touré dal di wuy ji boromam euh, fii ñuy waxee ak yéen nag ñu ngi ci ligne ak euh, maître El Hadj Diouf ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ah maître Khassimou Touré daal di wuy ji boromam yan kàddu témoignage nga yëkkati jëmale ko ci moom. ah di wax ne kenn xëy yàlla rek naa leen lii moom doom aadama yëpp fa la mujjee ji. Oh. waaye xaasim moom uh-huh. da doon suma suma rakk uh-huh. eh, di ko ñaan yàlla xel fi àjjana uh-huh. li mu mën mooy soldat bu njëkk comme man waa géegi néew laa comme moom ndax eh, suma maam bi nekkoon géegi néew doon wëlëre bàyyi wala Cheikh Touré mu ma grand sama salaire bu njëkk sama soldat bu njëkk ma dikk ñaan moom la ma fay parce que boobu mu abi dama hmm ñaar mais ma dikkee ñaar mhm. léegi mu ne ma joxal ma ko sama bàpp dama bëggoon da da ngay dem Kaolack ma damay dem Kaolack mu ne ma doon joxal sama bàpp gee ngi neew mhm. ma jël solde bi dem jox ko Alaaji Cheikh Touré ndeysaan ndeysaan ndeysaan du ma fàtte ne ne ah, nga ñaanal ko mhm. mu ci enveloppe bi ma premier salaire premier solde stagiaire cabinet maître ma dikkee ñaar maître ma fa fa la xasam dooree. ndeysaan. fa bi mu amee concours bi. Mhm. ma dikkee ñaan ma ko jël immeuble bu nekk mhm. la xasam dooree fa la defee mhm. ba pare. léegi nag ba mu ko fayee noonu ma mu ne ma bu ma kuy dem daal gée ngi néew est-ce que grand dem ma ne ko damay dem kay damay dem Kaolack ma ne ma boo yeggee gée ngi néew joxal ma ko paa bi. ko na ma ñaanal sama sol bu njëkk yi nii. mu njëkk di amal jox ko El Hadj Cheikh la woon maître.

Mm-hmm. bind benn livre xam nga xaalis Touré. ah bind na livre. lu mu tudd bind na de moom parce que moom littéraire la woon. Mm-hmm. bind benn livre bu am solo sax. ci lu mu jëmoon te ñoo ci xam-xam rek xam-xamu rek. Mm-hmm, ak jamono bind na bind na livre pass. yàgg na koo bind. boobu la soog a nekk avocat. ndeysaan. boo nee xam danañ daje aussi ci défense murid yi. Mhm. maa ngi rappelé keroog. Mhm. bu ñu dajee sëñ Tuubaa yi. Mhm. jëloog jumaa ji. sëñ Moustapha Salif Oñu. Kazu Rajab. boobu Tuubaa ñu ngi tabaxaat defaraat marbre bi. waa CDO indi beneen marbre bu dul bi leen sëñ Moustapha Salif commandé woon. bu baax ba leen laajoon bu italien ñooñu ko fa indi bu portugais. Mm-hmm. Euh, ba yóbbu leen ci yoon sëñ Moustapha yóbbu leen ci yoon ndeysaan. Mm-hmm. ñu jot sëñ Salim mën nañ mujj bàyyi ndeysaan. ndeysaan. booba ñun ñëpp di toog wër sëñ Moustapha Salim. ndeysaan. waaw sëñ nekk jeune avocat. Madické mm-hmm. Niang ngi toog. Maître Babo ngi toog. Moussa Maître Dioma Ndiaye. Mbay Dieng ak Ndeye 36 avocats Mouride. ndeysaan. wallaay. oh défendre Touba. ndeysaan. waxaa sa mu cawoon. ndeysaan moom dafa bokk Touba moom dafa am cër. Touba wallaay wallaay kër am na kër fii Touba ci HLM. waaw dafay am kër am fi cër. am na fi kër am fi cër. effectivement effectivement. ay waajuram bu jigéen waa Touba la. ndeysaan ndeysaan. donc xaalis daal moom ñàkk dañu lay. ndeysaan ndeysaan. doon xale bu am compétence. macha allah. lan moo indi woon seen relation yéen ñaar ci nu ngeen xamanteeg yooyu. fekk na ma ci avocat mu nekk grand mais xaw ma woon ni ma xam naa ne après géej gi la dëkk. Mhm. après laa ko xam après mu tax fa ma nag ma papaam ne ma dénk naa la Xaasim Touré. ndeysaan. waaw yow la am yow la avocat yëpp yow la ci koy jege yaa dëkk géej gi ne mhm. sa mba sa maam Fodé mhm. yaay magam foofu ngeen nekk Dakar daal. keroog ba muy ne solde bi saree bi ne ko Xaasim ne papa nga ñaanal ko. solde ma ngi nii. Mm-hmm. nee naa ma ko joxoon ko ñaanal ko ko ci. Mm-hmm. Eh, li ci ko eh, eh, kii. addiya ndeysaan ndeysaan ko ndeysaan. noonu daal loolu kon kon dëgg la wallaay maître. sama rakk la jërëjëf jërëjëf jërëjëf maître El Hadj ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm maître El ci euh, nangu gi ñu nangul euh, kàddu yi témoignage jëmale ko ci maître Khassimou Touré ak leeral yi ci jot andi. dama ci sawar sama rakk la. Mm-hmm, ndeysaan. loolu lu ma sawar la ndeysaan. ndeysaan maa ngi jaaree jabaram yi. Mm-hmm. Euh, di di wax Massa daal na yàlla keroog dafa am njaboot. ndeysaan. jàppale leen ko baax la woon. jërëjëf maître. ku la woon. ko jaaree Touba ko jaaree Sénégal yëpp. jërëjëf maître di ko jaaree merci.